Euh, Ousmane. dafa am lu koy déranger si mbir gënalu ko Macron bi mu gisee Diomaye li mu gis mooy ñi mu defoon tout leur possible pour décapiter leen. Hmm. kooku la gis maanaam ki mu janool mooy ki nga xam ne Macron a tout fait pour les décapiter politiquement bi régime Macky Sall di buum réew mi nit ñi. Hmm. conseil militaire u Élysée ñu ngi woon fii ci suñu institution yi di conseil. Hmm. mosuñ leen rappeler te loolu ñoom seen loi yi da ko aaya. seen loi yi dafa aay ñu am benn collaboration technique militaire envers bépp régime bu respecté wu les droits de l'homme bi Macron di woote Soudan ci ñetti nit yu fa nooy lacrymogène période boobu mhm. ñu ngi abattre ay juróomi sénégalais par jour mhm. fii ci Ndakaaru mu ne démocratie mosul wax mu ne démocratie am Sénégal président bi tëgg na élection opposant yi bokk nañ Macky est un démocrate sax moom proposé na ko liggéey bu pare mais gisoo ci accession pouvoir Diomaye ak euh, euh, Ousmane Sonko que Macron def ci am position un mauvais perdant jàpp ne les intérêts de la France sont menacés et loolu yëpp. si mécanisme xam na ne leurs intérêts est menacé ici Sénégal mais malheureusement Macron ni mu koy gérer du noonu la ko waroon gérer man Macron dama jàpp ni bi ma xàmmee man xàmmee di gis ak li ma gëstu. ci mm. ay président France mu ci gën a ah comment ça waaw Macron accident la woon rek ci histoire politique français mu nekk président Macron xolal bi mu nekkee président léegi France perte na sous région bi yëpp. Mhm. relation am ak réew yu bëri xajam na. Mhm. digganteem ak ay voisins yu bëri xajam na. ba ci seen diggante ak Russie bi maam Macron mooy le président le plus nul xolal tey amul majorité assemblée. su demee élection actuellement mooy troisième force. même bu rassemblement national gagné maam l' extrême droite l' extrême gauche ay gagné. par force cohabitation maam Macron accident la woon rek ci histoire politique française mooy ki gën a nul en terme de diplomatie. mais ay gaaf rek lay def xam nga li mu def nii gaaf la. waaw vrai véritablement Eh, génération moo général bu nga xamante ni mutation am dafa indi. dafa indi polémique nga woo ko di ko féliciter. Eh, ci moment lu mu def def def loo xam ne ca parcours am lu élogieux la. du hmm. temps bi. waaw bàyyil ba après. ba nga xamante ni lépp dina dal lépp dal la nga woo ko décorer ko. ba mu dem jël poste jël service su boobaa ko bañ a mais moment bi mu ko def jàpp nga ne c'est pas le bon moment. mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la hmm. République du Sénégal gisee na ak moom. jot nañu échanger mais vite fait mm-hmm. alors voyage président ak rencontre am ak Macron ban jàngat nga ñu si defal depuis boobu amuñu sens ngir waxtaan ci. balaa boobu daal encore maa ngi insister waat une fois j'espère que. ambassadeur u Sénégal ministre des affaires étrangères Sénégal dana convoquer ambassadeur u France su ko Sénégal defoon. Mm-hmm. ci jour bi tey duñ fanaan. te ñoom hmm. convoqué wuñu ambassadeur sénégalais. waaw loolu c'est vrai. réciprocité na ci yi lay amee. Hmm. da ngay fexe ba ab réew respecté la rupture du wax du slogan ay jëf la da nga koy jëfee doxe ko gis nga Turquie. Hmm. lépp lu dirigeant européen wax Erdogan ci saa si. ñu convoqué seen ambassadeur yi ñoom fula lañ. boo demee ñu jàjj la mettre en sa réew euh, wax la ñoom seen i seen maanaam li ñu mer. ci seen agissement ci seen wax nga yóbbul ko sa réew moo tax xoolal Turquie pays européen yëpp a leen respecté waaye rupture rupture du kàddu jëf la maa ngi xaar loolu ci ambassadeur u Sénégal d'ailleurs heure bii rek waroon naa fekk ñoom benn communiqué mbaa benn réaction. mais mais est-ce que gisoo ni nag jot na dëgg-dëgg Sénégal dagg. yu bëri digganteem ak France ay man de bu ma man de bu ma doon président Diomaye ci lii lay profité. rek dagg suñu relaa nu mu tudd rompre suñu accord mm. militaire yi man mm. maa ngi doon wax naan ñu ñun dañoo soxla accord militaire pour ñu protéger ci suñu pétrolier gaz yi waaye France moom daal gëm naa ni nañu romp ak moom rek mu dem ñu dem ñu dagg vraiment ñu ay nit xam nga ànd mm. nit a ci neex ànd ak nit waaye ku nitewut neexuta àndal te ñoom dañoo nitewut surtout rawatina Macron man moo doon présent Diomaye ci laay profité rek romb en tout cas li xew nii bu amul réaction régime bi. non danaa ci déception bu mag. non mais je pense que ni dinañu réagir. parce que quand même non danaa ci am déception euh, mbir la moo xamante ni mën naa signifier lu bëree baree bëri. lu rëy rëy rëy la. Mm. et puis dafa c' est pas élégant de mu la loxo Macky Sall mu ngi ci biir. je ne pense pas. mais daal xam naa ne Macky Sall moom ma nga ca wetu jomaay te moo doon prise de conseil national de sécurité y' même pas six mois. xam nga Macky Sall man am wax naa ko Macky. mais Macky Sall il travaille pour Macron. bul fàtte waaw mooy li ma la xam nga Macky. lim def àdduna juróom-ñaar moom rek ko mos a def ancien président. Hmm. boo xam ne pareego sa mandat. accepte poste ci beneen puissance étrangère. dem ak ay secret défense dem ak ay info stratégique ci réew mi. Hmm. toog ci wetu Macron di ko liggéeyal. loolu trahison la. doo ko def États-Unis doo ko def France doo ko def benn pays souverain qui se respecte. dans tous les pays souverains Macky Sall du fa am parti. munoo nekk ancien président di liggéeyal beneen puissance sa parti am ay député à l'assemblée. mais dendandoo conflit d'intérêt day dendandoo bi Macky Sall ak euh, Macron teyul sa xel. waaw tey na sama xel kañ. ndax lépp lu lépp lu jomaay di tiim ci ay secrétaire Macky xam ko. Hmm. Macky nga koy wax Macron bu ko Macron soxlaa. lii la di secret yi réew mi yëpp lu fi stratégique Macky xam ko te Macky ay nitam ñu ngi ci yenn poste yi ba tey de loo ci xamul. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ba fii bu Macky wootee jomaay woote Macky la ñuy njëkk décroché moo leen teg fi ne. ah bon ah oui loolu kañ amul nañ dem tëjum. am na ñoo xam ne dañuy wuy jomaay malgré eux rek parce que c'est le président de la république mais ils sont fidèles à Macky Sall moo leen jëlee zéro def leen liñ doon. donc yow da nga. léegi yow nga foog ni ñooñ ñëpp. yow nga baleen ca administration bi ñuy yeew dinaa na contre ma ki nekk ci wetu Macron. donc da ngaa bokk si ñu gis ne. yàlla ci nu mu gën a gaawee. ñenn ñi dañ leen war a raxas yenn poste yu waaye dafa ëpp. nguur gi toog trois mois am yenn nit ñi yegg nekk ci yenn poste stratégique yi ba tey loolu dafa naka nga jàngate image su Souleymane Jules Diop bi nga ko gisee. <laughs> Paris ah, moom ak ci buruxlu la ne rek gëj boo demee gëj naa teeru Macky Sall ñëw mi Paris en tout cas gisuma ko donc buruxlu rek il voulait faire bonne presse wane nii xam nga il a l'oreille à l'écoute du du président xam nga moom c'est du persona non grata xam xëy na yooyu xam nga rek après def bonne presse et puis yaakaar maintenir. sa bopp ci poste bi nga nekk rek waaye dans un état sérieux Souleymane Jules Diop moom amu fa poste. poste war nañ ko gaaw dinde ko fa de. wala gaaw dindi ñoo ñëpp waruñu fanaan dafa am ay nit ñoo xam ne keroog bi Diomaye hmm. accédé mën signé. kenn waru ci woon fanaan sa poste. Hmm. alors le président Bassirou am na waa joo joo xam ne PCA yàlla bi manifestation yi amee fetal la yor di jàpp booy. Ah kooku lu ne wax na ko Sonko Bassirou Diomaye. te ba léegi mi yooyu non nag gars yi nag war nañu gaaw ci yenn yi quand même. des fois da nga neex quoi raxas bi parfois day yéex ñoo ah. xam ne ñoo doon jàpp booy ci mbedd bi. waaw di leen jiin di leen tam dëmm ak lu ne. vraiment raxas ñoo xam ne ñoo doon jël nervi yi di leen jox xaalis. waaw naan leen dóor leen booy jàpp leen taal leen di wax lu ne Sonko di wax lu ne Diomaye ñooñu bu seen gént doon sotti woon tey ñu ngi naan Diomaye Sonko condamné pour trente ans pour atteinte à la sûreté de l' État. yu nga baleen ci pof yi ba tey ak lu yéex yéex yéex quand même. Mm. des doo ko doo comprendre quoi. très rapidement dañ ci dugg face to face bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar fay am na ko ak euh, Macron mais mu nekk euh, ca xeltukat yu bëri saa wax ne véritablement foofu Diomaye dafa dominer Macron bu baax. alors ndax bi nga gisee loolu jàppoo que ni fi mu toll nii nag ñu ngi door am en Sénégal indépendant. ah oui xam nga Diomaye ni mu ñëwee. ci lépp dafa marqué souveraineté am hmm. non seulement ci style vestimentaire bi diplomatie lépp day wax mais hmm. venu en tenue traditionnelle muy costume africain yi jabaram def lépp made in Sénégal hmm. mu wàcc loolu benn rupture la deuxième rupture bi mu wàcc ci résidence su bi ko prévoir ci ambassade bi loolu nekkaat deuxième rupture nga xam ne français li leen suñu président yi tàmmaloon mooy dal ci hôtel yu cher yi réquisitionné ko nekk fa di bambula wan na ko na ko man suma réew dama fonk suma alalu réew ñëwuma pour pour yàqu ñetteel bi ni mu ko nuyoo ak taxawaayam toogaayam am na lu mu ko imposer. Mm-hmm. mooy nit ku gëm boppam moo ñëw à partir de ce moment yooyu dafay marquer rupture parce que dama koy wax fan yi maa ngi naan uude nu mu la gisee la lay ëwee mm-hmm. lu olof di wax mais tubaab nu la gisee la lay ëwee mm-hmm. boo ñëwee woon ko na ko man faale ma suma xaalisu réew damaa ñëw pour noos mu fexe moom li ngay noos noonu nu mu ci jëlee wàllam mm-hmm. boo ko waree nag ne ko man sama xaalisu réew dama ko fonk ba du ko yàq ci ay hôtel moom it mu fonk la sa xaalisu réew beneen bi Diomaye rek mooy seul président sénégalais bu ñëw récemment janoog président français première visitam te ñëwul di yàlluwaat Mm-hmm. naan ko keese dara newu faak boo ñu jàppalewul duñu fay donc yooyu yëpp dafay peese xam nga ki ñëw di tàllal mm-hmm. ak ki tàllalut bokkut mm-hmm. ki tàllal ak ki tàllul duñ bokk ni ñuy ni ñuy mën a imposer seen bopp donc jàpp naan jomaay euh, dignement représenté le Sénégal ci visite bu bref boobu. et jàngat bi nga xamante ni la presse euh, de la sous-région def nañu ko fii mu mel ni Afrique dañu am ndam ci vraiment kaw France ndax euh, posture bi nga xamante ni président euh, basiru Diomaye Diakhar fay am na ko ci mbir mi. waaw tout à fait parce que xam nga Diomaye président Diomaye dafa am lu muy symboliser. Mm. mooy le renouveau du patriotisme africain. Mm. et à travers moom ak son leader politique Ousmane Sonko. jeunesse africaine bu bëri dañuy gis ci ñoom renaissance yenn leaders yi daan dégg teg jotul leen gis Thomas Sankara Lumumba. Mm. Mandela et autres dañuy gis des hommes politiques intègres. panafricain souverainiste yu taxaw yoo xam ni rêve boobu